também vai já quer que não rola tá men não me abra me vai já quer que man já drama man kan? ah que No, no, no, nak, nak, man atraso deve na press pelo mundo de de caram tá tudo para ver você que sete wala sete wala é vir vai já não loo bëgg lay def ah, mais sinon c'est très joli ça me va. asalaamaaleykum. wuy ba xoolal bu ngeen bëggee fu ngeen dalloo def seen yëfi caaxaankat yooyu bon yooyu da ngeen dem wuti ko ca Obersia wala fa ñuy passé temps. sama zone ngeen ma fekk. mais kees xam nga. sama zone ngeen ma fekk. kii xam nga waaw. kañ dem nga woo waa ji rek wax ak moom seen mieux. Eh, eh, ok soxna. Oh, oh, ah pardon soxna da ngaa wutal. waaye waaw moom mooy moom mooy taille fleur moom amul sax solo ci kër nan biya bonge hor nge da ni ile fi laufi sace da bile fi eh, ki sama dom la man maa ko fi indi. man maa ko indi fii si gi. yow yow ya de gis nga Cheikh Ba ay sax ko yow sa baye yow tamit gënal nga yak sama dess bi ci ci patron bi yàq ma sa ben dara mom mo la xol ba ba estimer da na ne carrément non kii liggéeyam doy mako ba ko trébé mom ci bopam dag fleur la fi nekké ak balé ak rato ak di raser le siège di fomp tabali ak caro yak yoy lool la fi nekké yow xam nga do nitu dara yow man doo nitu yow do nitu dara à propos ci société bi moy fay télé ok ñu waxtaan nak dem ci guddi ma expliquer ko comme quoi mom sa daf ne ma yow yay chargé de mënu tuddati. son conseil financier waaw conseil financier. ma ne ko place bi teg ko ko. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ah. ah. dama ni ku ni téye na ma waaye dama ni. eh xale bu ndaw bi yow laay waxal ku lan moo xew sàcc ba feeñ na te sa femme moomu ko moomu ko xamoo xamoo man xamoo xamoo man. waaw sa papa maa ni boo ci nekk man moo ko laal. da ngaa lew de ko wala sama bopp dama lii. waaw damaa dégg fois ni mu dëree nii di waxee nii nii laa ko teggee woon même bu dee dix eh, per man moom la ko ràññee la amul arrêté la. Eh. moom la moom la. Eh, moom la yow la waaye amul moom fort waaye mais damay wax. damay wax damay wax waaw.